Bienvenue sur Salam Vision. asalaamaaleykum mbokk yi ñu leen di gërëm leen sant jàll ak les programmes de Salam Vision. Euh, tey suñu rétrospective de la semaine euh, li jëm si toute l'actualité nationale moom la ñuy càmbar euh, tuuti xam ngeen ni Sénégal fi ay fitna moo fi amoon fan yii passé di jëmale ko si mbirum Ousmane Sonko ak ndaw si di Adji Sarr keroog ba xam ngeen ni ay kilifa diine di fekk ay jéego yam solo envoyé ñu fekk ay émissaires waxtaan ak autorités yi. ñu mën a euh, bàyyi ñu nekk si kaso yi ñëpp a ko doon euh, rafetlu gis ngeen ni société civile organisation des droits humains ñëpp takku nañu ba dëgër euh, ngir dox doxu jàmm Sénégal dox dëkku jàmm la def nañu ci ay jéego yu am solo xam nag moom mooy lu khalife général des mourides di Mountakha Mbacké di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér-gu-yaram def na fi aussi ay jéego yu am solo. jot na euh, jël ay kàddoom ñaax ak askan bi képp kuy sénégalais ngay sénégalaise ñu teg ngànnaay jublu si mbirum jàmm te jàmm si lépp xaj kooku mooy le khalife général des mourides def na si ay jéego yu am solo débloqué nag benn somme bu cinquante millions si ay xaalis yoo xam ne jëmale ko ñi loru si manifestation xam ne ñàkk nañu seen bakkan nguur gi nag joxe ñu benn contribution mel ni président la république loolu askan bi ñu ngi koy rafetlu euh, ku mel ni yenn partenaire dugal nañu seen i koppar gëstuwaat ñi nga xam nag ñoo loru si manifestation yi man ne askanu suñu gaal semaine bi méttoon na lool fan yi ñu passé méttoon na gis ngeen ni euh, arrestation yi ba léegi ñu ngi wéy am na jàngalekat yi ñuy wax le G7 ñu doon dox doxum ñaxtu fan yi yëpp ñu bàyyi seen benn nattaango bu ñuy wax Lamine Barchi di professeur d'espagnol fële ca euh, Sédhiou Euh, benn village nekk côté Sédhiou dañ ko teg loxo am na tey benn weer ñu ngi woo nguur gi rek woo waa g ñu wéyal ay négociations ñu mën a bàyyi Lamine Badji euh, ba léegi nag euh, li ñu naan état d'urgence sanitaire mooy actualité bi démb minuit la njiit mi teggi lépp muy couvre-feu teggi ne ko si diwaan yëpp diggante dakaar Thiès xam nga ñoom ñoo mën yi couvre Euh, lépp luy lu doon gàllankoor askan bi seen liggéey ma ne lépp incha allah dañu delluwaat seen jàmm delluwaat seen i seen société loolu mooy Sénégal njiitu réew nag moo jël dogal ba moom ginnaaw bi ay loi yoo xam ni jëmale ko ci état loolu teg nañ ko démb ci mbir mi sur l' ensemble du territoire national mi nag diggante euh, Dakar ak Thiès xanaa di waat askan bi rek ñu góorgóorlu ñu gën a renforcer les mesures barrières feer baa ngi fi ba léegi mi ngi faat doomu aadama euh, ginnaaw le porte-parole du ministère la santé El Hadj Mamadou Ndiaye yéen koy dégg chaque jour muy wax euh, ñi loru si le coronavirus. Euh, yem si aussi le coronavirus xam ngeen ni vaccin boobu AstraZeneca indoon na ay coow am na ñi gëm vaccin boobu ñoo xam nag aussi gëmuñu ko. mais jiwaat ñu rek euh, di dem ñax ji moo gën loolu buñ ko defee euh, li jëm si li jëm seen biir wér gu yaram am nañu si yaakaar naam euh, li jëm nag si vaccin boobu ba léegi nag deuxième vague bi ñëw na egsi na fii Sénégal gis ngeen yéen dëkk tugal yi am na ñoo xam ni gëmuñu vaccin boobu mais am ñoo ñoo xam ne aussi gëm nañ ko mais ñun fii Afrique ma bamtuwaat ko organisation mondiale de la santé di OMS. daf ko homologué moo naan dafa reconnaître que vaccin yooyu amul benn gàllankoor li yem si actualité nationale xam nga ni njiitu réew mi ginnaaw euh, événement yu métti yooyu dafa na discours bi am solo discours boo xam ni jëmale ko si ndaw yi président Sall nee na dina débloqué toll si trois cent cinquante milliards si ay koppar ay koppar euh, diggante ñetti at moom moo ko dese fii ci nguur gi mën na gëstuwaat ndaw yi ndaw yi nga xam nag ñàkkum xëy. Euh, Sénégal bari na jeunes yoo xam ni ñii seen i lijaasa yi taxawaalu xam xanaa ñu jéem a renforcer les formations professionnelles tàggat gën a tàggat xale yi ñi xam nag defuñ dara yóbbu leen dans les de formation ñu mën leen gëstu loolu lu solo la. xanaa di war le président Sall mu gën a góorgóorlu euh, renforcer euh, sa politique financière jëmale ko si ndaw yi gis ngeen fi am na fi ay kuréel yu fi nekk lu mel ni ANEJ lu mel ni laa DER mooy bànqaas boo xam ni dafay les projet des femmes des jeunes ñu bañ koo limiter rek sur le plan politique ñu euh, boole si ñëpp parce que alalu askan bi la muy DER muy ANEJ muy les 3FP euh, di FONGIP loolu yëpp c'est des institutions yoo xam ni dañ ko jëmale si ndaw yi ñu ma leen a gëstu mën leen jàppale loolu mooy Sénégal bu ñu ko defee du benn problème mais par parlo li ñu war a moytu euh, actualité de la semaine nag dañuy indiwaat loo xam ni li jëm si mbirum njàngale nii ki nga xam ne mooy Mamadou Moustapha euh, Mamadou Mouhamadou Moustapha Diagne di directeur de la communication porte-parole du ministère de l'éducation nationale dafa génnoon benn sortie dafa benn sortie di ŋàññi yenn jàngalekat yi ñoom ñoo pousse xale yi ñu wàcc si mbedd yi topp kuje politique bi xam nag moom mooy waa G7 def nañu benn conférence de presse wedd nañu euh, tuur yi xam nag Mamadou Moustapha Diagne moo ko teg si ndoddu euh, jàngalekat yi dañu toog waxtaan def ay négociation loolu te ñu moytu aussi coow li Euh, di waat parents d'élèves yi nañu ànd ak dal ànd ak sérénité incha allah benn année blanche ki ko bi nag mooy ministre de l'éducation mooy Mamadou Talla njàng mi nag mi ngi wéy amul benn gàllankoor si daal diggu doom yi ba si daal kaw yi ñu ngi jàng euh, dans de très bonnes conditions. actualité semaine la semaine euh, rétro de la semaine ñi gën a ñaaxaat Sénégalais ñu góorgóorlu que Covid bi mi ngi fi xanaa di def ay campagne de sensibilisation si école yi. Euh, ñuy raxasu topp gel yi bu ñuy rek tegg nañu le couvre-feu ak l'état d'urgence sanitaire ñuy euh, rester les bras croisés ma ne déet la ñu gën a góorgóorluwaat def ay campagne dans les quartiers xanaa di waat xam ñooy xam ni ñooy euh, bàjjenu gox yi da ngeen le mini le directeur de la de de l'information nekk de l'information éducative Ousmane Gueye nee na ñu gën a góorgóorluwaat bañ a Euh, relâché wu relâchement muy indi ay gàllankoor li jëm si actualité euh, de la semaine xam nga ni Sénégal euh, dëkku diine la dëkku lislaam la di gis nga ni suñu kilifa diine yi ñuy continuer def seeni xutba pour dal dal am fii diwaanu Sénégal ñu ngi koy wéyal muy Touba muy Niassène muy ba si laay ni xam ni fête lañu keroog mooy cent quarantième appel de Seydina Maam Limaamu Laay nekkoon na appel bu ci ay jaar na yoon amul benn euh, gàllankoor li yem si mbirum actualité de la semaine ma ne ni ñu gën a góorgóorlu di woo euh, suñ takk der yi mooy les forces de police la gendarmerie la police et surtout les sapeurs pompiers mu nga xam ne ñoom ñooy euh, fay lakk yi ñoom ñu nekk si marché yi di sonn guddeeg bëccëg loolu yëpp ki nga xam nag mooy président de la république war leen gestu Euh, renforcer seen i moyens logistique et financier mooy suñu mbokku les sapeurs pompiers Sénégal nag euh, bu xaree ñaar kenn ñaanu ko yàlla bu gaal bi suruxee ñëpp ay surux lool dañuy ñaan yàlla rek ñu mën a gën a góorgóorluwaat euh, jàppalante bokk ndey bokk bàyyi loolu bu ñu ko defee Sénégal da jëm kanam di wax aussi yenn ministères yi président la République conseil des ministres joxe na fi ay digal à plusieurs reprises ne ministères yi. li ñu euh, góorgóorlu di di gëstu askan bi mu am des des suivis auprès des populations mais ngi dénk le ministère euh, ngay def la neex doo gëstu population doo tawees population man loolu teguñu ko fenn dañ la fi teg fan la gouvernement yaa war a jël say matukaay jël say responsabilités gëstu askan bi loolu mooy sunu gàtt jëmale ko si actualité de la semaine xam nga ni euh, les cartes de presse mooy commencé nañ ko euh, wasaare si biir réew mi euh, dañu ne le CORED mooy mu ñuy saytu l'éthique et la déontologie jëmale taskatu xibaar yi ñoom euh, ñu ngi woo journalistes yi yëngu si média yi ñu gën a góorgóorlu am seen carte de presse gën a góorgóorlu ale dans le professionnalisme te ñu moytu l'amateurisme loolu du journalisme nga xam ne moom mooy les réseaux sociaux ñëpp ñu liggéey nañu gën a góorgóorlu tamit. di informer juste et vrai bañ di diffamer di wax loo xam ni amul di euh, di ŋàññi ay nit di saaga ay nit ma ne loolu lañ ko xoolaat bu baax à travers les réseaux sociaux et surtout a travers euh, toutes les organes de presse ñun mbokk journaliste yëpp laay waxal ñu nekk si rajo yi télé yi di euh, def ay émissions ma ne loolu dañ ko war a xoolaat bu baax te nañu bàyyi tàggaate yi bàyyi di jaxase ay nit bàyyi aussi Euh, di indi ay fitna parce que média leen rek la euh, proposer de très bonnes émissions joxe des informations yu mucc ay yu jaar yoon loolu mooy démocratie te loolu mooy bonne gouvernance mbokk suñu gaal ma ne ñun média yi ñun les hommes de média ñu ñu war a di toog di diisoo di waxtaan di weccelante ay solution mais pas bañ di jey nit ki di ko euh, di ko jox ay information yoo xam ni di indi ay fitna information balaa koy wasaare ma ne dañ koy seetu bu baax loolu mooy journaliste mais ñu jox la information nga taal dëkk nga euh, boyal dëkk loolu du dëgg du yoon gis nañ fi nag déw yu mag gis nañ États-Unis c'est un grand ñoom y a des très bons journalistes mais Sénégal néew amul ay journalistes yu baax am na ay journalistes yu baax jamonoy Senghor jamonoy Abdou Diouf y avait le professionnalisme mais da ngay gis tey lu waay neex def lu waay neex saaga loolu lañ ko war bu baax yow aussi le CNRA CNRA jël na fi ay kaddu ñu war aussi taskatu xibaar yi gis nañ fan yële passé euh, jot nañ fi ñaari télévision ñu dañ fi indi ay fitna kooku du sumay kaddu kaddu CNRA la li ñu gën a góorgóorlu rek su jiwaa sama mbokk journaliste yi ñu toog di waxtaan di diisoo génne suñu réew si ay jaxal ay ay jiixi jaaxal la rek pour la semaine nag xam ngeen ni euh, li jëm si la levée des sa de l'état d'urgence sanitaire nekk na euh, lu baax day tax nit ñi ànd ak dal delluwaat seen liggéey gis ngeen ni fan yii passé ñax bi bare nañ ci mel ni artistes yi lu mel ni euh, comment dirais-je sociétés yi usines yi fermé ñëpp ngi doon jooy que loolu indiwoon nañ ay gàllankoor si koom-koomu réew mi Sénégal cette période la semaine Sénégal rendre na Amadou Mokhtar Mbow kan mooy Amadou Mokhtar Mbow nekkoon fii ancien directeur général de l'UNESCO démb la doon màggal c'est cent ans ah loolu téeméeri at bu ko sant yàlla Mbow nekkoon aussi un historien Mbow bind na ay xalimaam sur l'histoire du Sénégal l'histoire de l'Afrique kooku gàcce ngalama Amadou Mokhtar Mbow euh, ñu ngi ko doon màggal fii ci Sénégal si teewaay kilifa diine yi takku des hommes politiques des journalistes des anciens ministres des diplomates rend nañu hommage Amadou Mahtar Mbow di doomu Sénégal dem doon fêter ses cent ay téeméeri atam rend hommage aussi à Thione Ballago Seck euh, njiitu réew mi bind benn bataaxal di ko sargal artiste la woon ndaanaan la woon kii di Thione Ballago Seck ñaan ko yàlla yàlla xaru ko àjjana di woo doom ji euh, Wally Ballago Seck di ndaw loo xam ni mi ngi sur la bonne voie xanaa mu gën a góorgóorlu euh, gunge baayam ki xam mooy Thione Ballago Seck euh, artistes yi ñëpp am nañ ko hommage loolu Sénégal mu koy rafetlu ki xam mooy Thione Ballago Seck ginnaaw bi mu fi génnee àdduna euh, fan yi passé à l'âge de 66 ans aussi di woo suñu mbokk sportif yi la semaine stade yi soirée yi spectacle yi muy Sorano muy grand théâtre ñu nekk si bar café yi euh, ba si mbedd mi les cérémonies religieuses ñi nekk si ngénte yi dëj yi xawaar yi ma ne nañu takk seen masque loolu rek moo am solo takk seen masque di raxas seeni loxo euh, jël ay distance renforcer les mesures barrières loolu bu ñu ko defee rek du am benn problème gis nañu mas maa ngi fi ñun dañuy sensibiliser rek et alerter les Sénégalais ñu gën a góorgóorlu que mbas fii loolu daal moo doon suñu recto de la semaine ñu gën a góorgóorluwaat jàppante joxante loxo bokk ndey bokk bàyyi jële fii mbas mii mi nga xam ne mi ci wàllu Sénégal balaa may tëj euh, di waat le président Sall mu gën a góorgóorlu gestu cette jeunesse ah président yaa ko wax trois cent cinquante milliards ces trois ans yi des di nga gestu ndaw yi euh, président Sall euh, coow li bari na ñëpp naan troisième mandat troisième mandat troisième mandat mais président musul taxaw le na je serai candidat pour un man mandat Macky Sall musu ko wax nañu ànd ak dal xanaa ngeen xaar ba président ne je suis candidat pour un troisième mandat bés boobu nit ñi dañu mën a am bu ñuy wax mais mi ngi liggéey euh, du waat le président Sall mu renforcer les les infrastructures euh, sur le plan national mbokk yi leen gërëm leen sant tey mooy la rétrospective la semaine de la semaine mesdames et messieurs Euh, chers téléspectateurs, c'est l'actualité, euh, la rétrospective qui ont marqué les faits de l'actualité nationale. Euh, nous lançons un appel à tous les Sénégalais et les Sénégalaises de garder la stabilité, le que notre pays est un pays de démocratie, un pays de tolérance et de bonne gouvernance. Euh, nous avions traversé ces jours-ci une situation difficile et déplorable que les Sénégalais ont tous fustigé et euh, Il y a eu plusieurs arrestations. Euh, il y a un enseignant, Lamoblamik Bachi, qui est professeur d'espagnol, qui a été euh, appréhendé en plein cours, c'était à Sédou, dans un village. Le G7, les enseignants ont crié le ras ont manifesté pour exiger sa libération. Hélas, il est temps de le libérer afin que nous puissions retrouver la paix et la concorde dans ce pays. L'actualité de la semaine nous mène également à travers nos guides religieux. J'ai entendu le Khalif général des Mourides, Seigneur Muntaha Mbake, qui est un homme de paix, un homme de dialogue, un homme de consensus et d'ouverture. Ça nous rappelle de feu, euh, euh le feu qui était un régulateur, un médiateur infatigable au service de la nation. C'est le même son de cloche de, du l'acteur Khalid de Moury qui ne cesse de tendre la main aux Sénégalais de dire oui pour la paix et non à la violence. Euh, il y a eu beaucoup d'arrestations ces jours-ci. Euh, c'est concernant l'affaire Ousmane Sonko. Ça, c'est une vie entre le parlementaire et Adissar. Le Sénégal n'a jamais de tels troubles, de telles euh, pertes en vie humaine. Euh, nous lançons ce cri du cœur aux organisations des droits de qui sont beaucoup manifestées, qui ont dit non à la non-violence. La semaine aussi a été ponctuée par la levée de l'état d'urgence lancée par le président Macky euh, le couvre a été lancé, Mais ne restons pas les bras croisés, chers Sénégalais. Euh, le Covid là, en train de de 1000, euh, aujourd'hui il y de 1000 morts. C'est inimaginable. Renforçons les mesures barrières. Chers Sénégalais et Sénégalaises, euh, lavons les mains, combattons euh, ce covid l'opinion nationale et internationale. Il y a eu trop de morts, il y a eu trop de pertes en vies humaines. Regardons les grandes puissances qui sont mobilisées pour éradiquer ce fléau, cet ennemi du coronavirus. Euh, restons dans l'actualité et la rétrospective de la semaine, ici au Sénégal. Euh, le problème du vaccin euh, avait créé des tollés et beaucoup de remous. Certains Sénégalais ont refusé de ne pas se vacciner. Mais l'information a été bien lancée par les structures sanitaires de ce pays. Le ministre de la Santé, Abdoulaye Doussard, rassure et rassure les Sénégalais que ce vaccin est homologué par l'Organisation mondiale de la santé. Chers Sénégalais, et croyance, et croyance, nous disons, à nos autorités sanitaires. Euh, allez-y, vous vaccinez. N'ayez pas peur. C'est l'OMS qui donné nous disons, euh, cette volonté et nous a poussé, nous les Africains, à se vacciner. Euh, ici au Sénégal, euh, sur l'actualité rétrospective de la semaine, euh, nous lançons l'appel aux enseignants d'aller enseigner, d'éviter ce qu'on appelle des tiraillements et des guerres dans le système éducatif. C'est comme à l'université, euh, des diplômés qui demandent leur, leur, leur, leurs insertions dans les facultés, Nous lançons le gouvernement à prendre des décisions, le ministre de supérieur, de veiller au gré à ses étudiants, aux bacheliers, de les, euh, de les orienter. La rétrospective de la semaine également nous permet de sensibiliser les Sénégalais dans les quartiers, que le Covid est là. Allez-y, euh, prenez vos soins, lavez et prenez toutes nos dispositions pour éradiquer ce fléau. Euh, la rétrospective de la semaine Euh, nous permet également euh, de décrier euh, ce qu'on appelle l'insécurité grandissante au niveau du pays. cette levée, nous disons, du couvre-feu a donné un loufle soulagement aux artistes qui ont toujours crié le ras-le-bol dans les cafés, dans les bars. Attention, prenez vos soins et gardez-vous bien vos soins. Attachez ce qu'on appelle VOMAS, laver euh, les mains pour, nous disons, combattre cette pandémie. Et cette pandémie est bien là. Nous lançons aussi un appel au président de la République, M. Macky Sall, qui a tenu un discours, euh, un adressé à la jeunesse. milliards euh, seront débloqués durant les trois ans avant que son mandat s'achève pour penser à cette jeunesse sénégalaise. Nous lançons aussi à toutes ces institutions euh, qui gravitent autour du gouvernement. La neige qui euh, défend la jeunesse, le FONGIP, les 3D, euh, le DER, et euh, toutes ces institutions doivent renforcer le statut financier pour sortir du gouffre, le chômage et la situation des jeunes. Nous lançons cet appel au président de renforcer cette convivialité, euh, d'aider cette jeunesse, une jeunesse sénégalaise euh, plein d'initiatives, plein de bonne volonté. Hélas, mesdames et messieurs, c'était la rétrospective de la semaine qui vous a donné l'actualité des faits saillants. Et à très bientôt sur le petit écran de Salam Vision. Et à très bientôt.